ak kontante ci ñëwaat ak yéen ci alquranul karim téere yàlla bi nga xamante ni dafa leer téere yàlla bi nga xamante ne ni dafa jub téere yàlla bi nga xamante ne nii mooy suñu wéttal fii ci àdduna téere yàlla bii nga xamante ne nii mooy suñu wéttal fii ci àdduna dañoo ñëw fii tumuranke fi lool yàlla subhanahu wa taala yabal ay yonentam ngir ñu wétti lu ñu ci kaw suuf wéttal googee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujj ci jox ñu téere boo xamante ne nii bu ñu ci jàppee moo ñuy wéttali te mooy alquranul karim mbokk yi suñu waxtaan yële weesu ñu ngi nekkoon ak yéen ci suratul muminuun tey dañuy tuxu ak yéen dem ci beneen saar te moom moo di suratul furqaan ñu jàng fa aaya yu am solo aaya yoo xamante ni nii yàlla subhaanahu wa ta'ala moo ñu ko fa baaxe yàlla subhaanahu wa ta'ala moo ñu ko fa jox ngir mu wéttal ñu ngir mu gunge ñu mu nekk aaya yoo xamante ni nii suñu ko firee ba pare mooy li yonent yi bëggoon ay yi ñuy waaj jàng mooy aaya yi nga xamanteni ni nii loolu kase la yonent yi bëgg nit ñi mel ko mooy aaya yi nga xamanteni ni nii dafay leeral li taxoon yonent yi nekkoon ci terrain bi doon nab nabi doon xeex doon góorgóorlu aaya yooyu la ñu bëgg insha allah tabaraka wa taala mbokk yi yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci aaya yi بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما موكي يجن جين ديغ باتو إبادو في تي سنغال ستو سنغال جينيك نيو نيك يجن جين في ديغ ني باتو إبادو الرحمن إبادو الرحمن بات لا بو خامتيني تي القران لا نيك baat bi mu ngi nekk wa ibaadu rahmaani moom la gaa yi jël yàq ko naan ibaadu rahmaan muy benn ñaareel bi ñu jël baatu ibaadu rahmaan boobu am ñu ñu ko jagleel daan ni benn catégorie ci nit ñi daan ni ñii ñooy ibaadu yi ba ci yow mi koy wax sax dafa mel ni bokkoo ci looloo waral ñu tànn aaya yi nag pour bu ko defee yow nga xam bu ñu waxee ibaadu rahmaan mooy critères yi ñuy waaj a wax mu nekk ci jëmm ji moo xam ku góor la moo xam ku jigéen la muy benn ñaareel ba di ci xamee ne ko ndekete yi ñu yaakaar ni ku ko mel ibaadu nga mën nga ko mbubboo te nekkuloo ibaadu lu mel ni jàpp nañ ni da ngay sol mbaxana yor socc guddal sikkim satala kaala cëkkal sa tubéy màndarga yooyu bu dee ku jigéen ki mu muuru ñu ne di kii day ibaadu la waaye nag mbokk yi yàlla subhanahu wa moom am na lu mu ñu wax ni daal ibaadu rahmaan yi nii lañ mel yàlla ci alquran nee nañu ibaadu yi nii lañ mel kon nañu àndandoo insha allah ñu déglu ñu xool yàlla ñan la considéré ay ibaadu ak ñun Sénégal ñan lañu considéré ay ibaadu bu fekkee yow nekkoo woon ci biir ah nga jéem a bokk bu fekkee yaa ngi te nekkoo ko nga jéem xool li yàlla subhanahu wa taala wax nga daal di koy mbubboowoo yàlla nee na bi ci njëkk wa ibaadu rahman alladina yamshuuna ala ardi hawna yàlla nee na ibaadu rahmaan yi mooy ñi nga xamante ne nii bu ñuy dox ci mbedd mi ndànk lañuy dox doxin wi nag dafa am lu mu làmb yàlla dafa bañ dafa jéppi koo xamante ne nii bu génnee ci mbedd di dox day puukaréewu di dox ci mbedd di yëkkati say mbagg wala di bondé di wane ni da am doole wala ngay dox doxin woo xamante ni da ngay wan nit ñi man ci famille bu tedd laa bokk sama baay dafa am alal wala samay maam ñoo moom dëkk bi wala fii ak fii laa bokk doxin yooyu yàlla daf koo bañ dafa bëgg boo génnee ci mbedd mi booy dox nga dox ndànk bañ a waaxu bañ a yëkkati poussière bi yaay dégg boo rombee nit ñi nga romb leen ci ak dal ak teey yàlla jubluwul ci dox ndank gi ni ko ñenn comprendre japp ni wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al ard hauna moy nga genn booy dox dam saw loos ya ngi deg di dox ndank ba ko laal nga daanu lolu islam diglew ko ben yoon ali ibnu abi talib neena na yonente sallallahu saa wasallam bu daan dox daan dox bu deugar bu genn daan dox day melni ko wacc ci ab montagne day melni ko wacc ci montagne wala daan dox nga ni suuf si daf koy ndax dox bu dëgër kon loolu danga ciy jàngat ne alquraanu karim dafa am fu muy waxe waaye ñoom tamit ñooy jéem a tamsiil ñooy jéem a mel ni kuy jouer film ci ni yàlla nee na bokk na ci ibaadu rahmaan yi bu ñuy dox dañuy dox ndànk nga génn ci mbedd mi di dox doxu yambar loolu islaam dégalu ko kenn ay mbokk yi kon boobu moom mooy mandarga bu njëkk bi moom mooy wa ibaadu rahmaani alladina yamshuuna ala al ardi hawna ñaareel bi Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahu akbar. Mbokki ñaarelu ñaareelu mandarga bi nga xamanteni ni dafa wara nek ci ab ibadur rahman Wara nek ci kep ko xamanteni da ngay wuyo turu l'islam. Moy ci bir kër gi wala ci koñ bi wala barab ba ngay liggéeyee wala fu mu mën ci doon bu la nit di provoquer di la attaquer di la wax waxi ñak fu la do ko faalé da koy multiplier par zéro daal di dem bu nit indee coow nga indi jàmm waaw xaalu salaaman ngeen ko man jàmm laa bëgg mbokk yi wallahi azim nit ki attake la nit provoqué la pour tooñ la wax la dara faale woo ko ñàkk a faale googu du ñàkk fulla de mais da koo wan ne ko man maa la gën a mat ñàkk a faale googu yaa ngi ñoŋal sa waxtu ndaxte temps dafa cher. te boo fa taxawee di ko tontu di nga ñàkkal fulla sa bopp loolu la yàlla bëgg gis nga yàlla dafa bëgg ci jullit ñi ñu am fulla am fayda gis nga ñëpp bu ñu amoon fulla am fayda kenn du xuloo kenn du xeex parce que ku la romb ku la tooñ mbaa mu wax la dara doo ko sax faale dangay ngay jubal nga dem mais coow loo gis tontu moo ko yóbbu kaw imam Shafii nee na coow loo gis tontu moo ko yóbbu kaw qaalu sakatta wa xuusinta قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح فصمت عن جاهل أو أحمق كرم وفيه أيضا لصون العرض إصلاح أما ترى أسدى يخشى وهي ساكتة والكلب يحصى لعمري وهو نباح بات الجاهل بيلا إتليزي القرآن إمام شافعي مملا إتليزي ويمي نيل بولاكو دف أتاكي دلا وح وحي دف دلا خاص ولا دارا دوغو فالي دنجي دم imam Shafii nee na ñàkk ko tontu ku lay attaqué di la wax pour indil la ay coow nee na ñàkk a tontu gi nga koy ñàkk a tontu yow yaa ngi wane ne ku mat nga yaa ngi ñoŋal sa der kon mbokk yi ñaareelu màndarga bi nañ ci bàyyi xel ndax kër yu bari tey jii tas na wala koñ yi wala barabu liggéeyukaay yi ay tontonte moo ko tas wallaay boo nekk nit chaque jour mu teg lu bëtam di wax wala def bu ko faale gis nga ñàkk a faale googu wallahi moo koy rey waaw da koy rey. motax dañuy wax ni bu la nit waxe dara bu la xasse bu ko tontu soko tontu rek ding ko ray mu ngi non lolou kon il faut ñu bàyyi ci xel wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama mbokk yi ñetteelu màndarga bi walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama allahu akbar bokk na ci màndarga ibaadu rahmaan yi ni dañuy julli su guddé bu ñépp nelawee nga la di juk japp ba set taxaw jakarlok sa borom di julli mbokk yi su ngeen bayé xel ñaar yi ma njëkk wax sa ak nit ñi la bi sa ak sa borom ça veut dire que sa ak sa borom ni ko wara rafetalé nonu nga wara rafetalé digënté ak nit ñi waye tamit ni nga wara rafetalé sa sa ak nit ñi nonu la sa ak sa borom wara baax moo subhanahu wa taala bëgg bëccëg gi soo doxee ndànk ba ñu xuloo ak kenn sa diggante nit ñi dox demee côté su guddee nga daal di taxaw nag jàkkaarloog sa borom waaw walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama mbokk yi suñu maam Serigne Touba dafa daan wax ni bul mel ni ab néew ci kaw lal bul mel ni ab néew ci kaw lal nee na ngay bàyyi ba ñépp nalaw nga jug jàpp ba set dal di jakarlo ak sa borom mu ngi ko wax ci ben téré bu tudd ilhaamul wadud fi jawabi mahmud fala ko wax wala takun ka mithli maytin qubira fawqa alfiraashi fatahuza darara bal qum ida alqawmu jamian haja'u wa naji mawlaka bi qalbin yaxshaun wallahi non la ko waxe dal ni nga jakarlo ak sa borom lolo ay bi la lu junj والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما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 yalla yalla ma musal ci mbugulum jahannam lolou dafa am solo julit bi dafa war di bàyyi xel safara di ñaan yalla mu musal ko kon ñentelu mandarga bi bo xoolee ñaan la sa diggante kan la sa borom kon su ngeen xoolee tuddugum na fi ñenti mandarga ñaari sa diggante nit ñi yeneen ñaari sa diggante ak sa borom yi nga xamanteni sa diggante nit ñi la moy bu ci mbedd mi ngay dox dank do di dox dox di ko waaye tamit ku la tooñ nga baal ko doo ko faale bu nit ñëwee di la provoquer xeex boo ko faale muy ñaar ñetteel bi moom mooy ngay fanaani julli guddi te nga bàyyi xel nag waxuma rek nga war a xëy liggéey ji naan da ngay naafile xëy tardé wala nga war a xëy jàngi ji école naan da ngay naafile am na ko ko mos a def war a xëy jàngi école fukki fan yi mujj ci koor gi mu dem fanaan jàkka ji di dee naafile ba fajar nalaw ba midi la yeewu jàngiwul kooku islam waxul loolu tëddal nga nalaw ba yeewu dem jàngi ji islam islam boobu yow jàngi ji la gën a bëgg ci yow kon nañu xam farata bu baax islam mu ñu diggal ñu la mais nag na nekk fu jour boo xamante ne ni yow war ngaa xëy demoo fenn bu fekkee mën nga ko nga daal di koy def kon il faut ñu am compréhension bu leer ci l'islam bi nga xamante ne ni moom moo ci mujj ci ñeenteelu mandarga yi moom mooy gaa yi nga xamante ne nii foo leen fekk dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu musal leen ci li nga xamante ne nii moom moo di mbugalum safara kon mbokk yi yi yenn mandarga rek la ci suñu première daje ak yéen ci mandarga yi nga xamanteni ni mom la yalla subhanahu wa taala wax ni mom ku mu nekk ci yow rek na nga xamne ibadu ga ku mu nekkul ci yow nak na nga xolal sa bop xol ba xam li benn mbolo kasse ñoko mom wala yow ñoom gënuñu la ci yay bu gënuñu ci nga jug nga wuyu ji insha allahu tabaraka wa taala yalla nañu yalla defal deg ak top lepp lu fi jub nañ ko sante yalla subhanahu wa taala lu fi ñu jigal ñuko والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته